ay première apparition bu équipe bu Real Madrid ci ñax mu tooy mi nekk ca Wembley gars yi di ngeen gis tàggatu bu neex dégg li nga xam ne mooy jàmbaari fàkkte di taxawaay bi nga xam ne am nañ ko gaa yaa ngi waaj match bi war a am suba euh, fii ci même stade euh, même heure foofee nga xam ne daanaka ñëpp a leen ci xaar gars yi Arda Güler laa commencé moom it ngeen gis ko gars yi jàng lay def mu nekk ab teef boo xam ni bu am solo la balaa loolee lépp damay sàkku yow mi di ma door nga abonné ndax abonnement bi dana tax lépp luñ mën di dugal por ak yeneen yi nga xam ne sax dañ koy def di ay gëstu yoo xam ne du daray sport ndax seen bi loolu tamit bokk na ci lu am solo di dàbbar ñi ci yeneen bagage yi ñu gis ni gars yi nag tey jii ñu waxante dëgg tey lu ko mu diis yi ku koy gis naan ak màgget la wax leen ma ko ci commentaire yi li naqari ñu bari nag mooy dem gi nga xam ni moom lu Luka Modric war na koo jógee fële ca ma Madrid te loolee ba tey jii nit ñi amul ci lu leen leer nit ñaa ngi naan dina dem du dem waaye li leer ba leer mooy bu ma doon Florentino Perez danaa ko signé waat ñaari at seen ngëm yu bokkut ak ren ko defee ñu mën a dundaat cofeel ak moom dundaat bànneex ñi nga xam ne ñooy ay merengue te di ko topp ndax am na solo bu baax a baax baax ay merengue yooyu yëpp yaakaaru ma ni danaan am problème moom bu demee ak kile di Luka Modric ndax Bellingham a ngi solo bu baax a baax ci équipe bi Anthony Kroos moom it ngeen gis ko gars yi entraînement bi nee naa la gars ñi ñu ci bari kenn ku mu ci mën di doon danaa la coppatil ay vidéo ci moom bu ko defee wala boog ay photo yu am solo ngeen mën koo dàbbar ñu ànd ak ñoom ñoom

ci ay bi koy xaar loolee képp kuy merengue ah, di topp bii seen di nga xam ne mu demee catalan yi nag ma ziar leen donte nag ñoom qualifié wuñ ca final ba waaye nag ñi ngi waajal seen championnat ak seen entraîneur bu yes peq buñ daggee ci paquet loolee danañ ci dikkaat ci yeneen information ci kanam